Allô eh, Papa c'est bon hein Excuse-moi. Voilà, déggoo la. Papa, allô Papa, c'est bon, mu ngi ñëw. Papa, xaw a tafu nii rek ma dugal live bi. borom téléphone boobu la wàcc téléphone

Gracias.

ngeen fàttali Sénégal dafa yàgg bëgg am jiital ay valeur ak ay principe uniquement pour askan wi. No, no, no, Thai passport. I know Thai passport. Ghana passport. Oh, okay. What's for you? you. Tara man ngol la la se tre kon moom moom lii fan ngeen jaar. Live. Live. Dorumay Bastan. Thank you.

yii 318 carrés yii 500 carrés même procédure yi koy jëlaat waaw daw rek ngeen gisee ci lancé lancé ci littoral bloqué travaux yi def yëpp mettre en place une commission te commission baa ngi def liggéey bu ci nekk tamit koy jox nag wax naa ne semaine passée lii xam nañ ko bu dee ba maanaam nekk na ci ñu def ci yéen nga xam ne jamono yi ñu def lañ ci bëgg a wax ak Sénégal yi ñu ñu yore woon Sénégal ñaaw waaye de même loolu diggante sax moom la war a booy mu dem waaye. non non bu mu dem. mu dugg Palestijn. doon ko teggi tamit man dama sàrde de. ah ma nekk kolobaan bi heure bii ñu wax fii gerte gi. waaw liggéeyal ko waaw waaw liggéeyal ko waaw liggéeyal ko waaw waaw soixante-dix mille personnes yoo xam ne ay ay fonctionnaires ñoo ko séddale loolu moo tax ñuy dalal président la République kay kay am naa droit am naa droit Sénégal yëpp moo bëri coow la waaw dama dimbali nii ah melul noonu it ñu jàpp ni bu dee ñëpp dañoo bokk dara moom ku jàpp ren tab boobu nag génnoon tabam boobu moom soo ñëw mën na ko karam sawaay dañu yëgal ay produits am ci ànd ak ñooñu bi ñuy ñaan Sénégalais yi dégg nañ patron bëri na nga ñu bàyyi fajal ko ñu ñu bëgg a fajal ko léeg-léeg bu ñu dégg tam ñu ne nguur bu bees ñëw na te nguur boobu nee na dafa bëgg lépp jaar yoon na jub ñu ne kon am nañu ko nekk pour defal ko léegi ça c'est loolu amee nañ ko signalé dañ ko war a signalé buñ ko saytoo ba xam ne lii tegul ci dañ ko war a def dañ ko def mais du population boobu ñu ko ne maa ngi def rek loolu it mënuñu koo parce que day mooy jaxasoo kon ñi ngi ñaan ñëpp muy ci wàllu ressources naturelles yi muy ci wàllu suuf ak beneen fànn bu doon ñun de état am ci biir bu dëgg ñëpp dañuy xool li nga xam ne mooy jaadu moo jaadu te mooy doom kon ñuy ñaan population yi ñëw ñu bañ a di kese rek def rek ñun ñu yëg rek def moo tax président amul trois ans amul am naa sama fay ñu permettre te xam nañu mooy waaye ñoo yoroon seen ko loo xam ne du Sénégal yi war a kon ñu xam ne liggéey yooyu système nañ ko